Euh, sama yaay nee euh, fi ma juddo dañu ma doon paasante parce que ñoom musuñu gis lire bu ñuul donc man dama cey juddu ni la xam nga lire da nga judd sax xawa xees leer man dama judd rek ñuul ñu may awante di ma paasante ma nek staru hôpital waaw ma nek staru clinique ba nag waaw <laughs> yàlla dogal nak ma mag xamé euh, xam nga gu nek ñeñu bu toll ni man sama yaay di géwal teg ci suñu fami ñepp bëgg xéssal mal sama problème majeur moy dama juddu rek xeetu xeesal bu ma xeeñee damay daw bëgguma ko ba pare mu nekk te ci man dama fier parce que dama yàgg bëgg ne damay xeex pour femme noire